mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu naa bu ñu sante yàlla mi ñu may ñu fekke démb ci waxtu wi nekkoon fi santaat ko ci tay mu mayaat ñu ñu fekkee ko ci waxtu wi ñëwaat fi ak yéen di ñaan yàlla mu may ñu ñu dund ba suba te weesu ko di baalu xàq ñëpp ci koor gi di baal ñëpp xàq di jiital ci nuyo bi boroom kër gi fa tabarakallahu ni ñoom soxna nday loo ziyaara leen bu baax a baax ñoom soxna xadi tabarakallahu ak sama technicien ak technicien yëpp ñoom bàll ak ñëpp ñu nuyu leen ziyaara leen nuyu tamit ak jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen seen 3w yëgle point com tv ak fm yépp ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax mu mel ni tey mbokk yi dañu bëgg ñëwaat ci li nga xam ne sumboon nañ ko démb doon ko waxtaane tey ci lañ bëgg a yeggali te mooy défendre gi ab jullit war a défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la yàlla jox garaat bu mu joxul kenn moom la yàlla def ni mu deful kenn kon nag yow en tant que jullit soo déggee ñuy wax ci moom lenn loo xam ne lu safaanu la war ngaa taxaw na mu ko waxee woon moom yonent bi ne su gisee lenn loo xam ne mi ngi ci penc mi loo xam ne du yoon ngeen taxaw defendre ko moom moo ko waxoon kon tey suñ demee ba jamono dox ba am moom lu nit wax ci ko ci moom kon war nañ ko defendre ndax moo ne woon man raa minkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadihi moo ne woon su ngeen gisee ci penc mi loo xam ne jaaduwut fal yughayyiruhu bi yadihi maanaam na ngeen ko dindi ak seen loxo ngeen ko dindi ak seen loxo dindi gi ak loxo bi mooy lan tey fi jamono toll mooy su fekkee ni mën nga bind nga bind naqarlu loolu waaw loolu mooy bi yadihi comme yow mënuloo koo faj ndax ka wax wax ji mënuloo koo fekk fa mu nekk di ko duma wala di ko def leneen neena na sa xalima nga faje ko noonu moom la suñu mag ñu baax ñëpp daan def ndax lii du guléet ñu wax dara ci yonent bi en 2007 xewoon na fi am ñu ne dañoo caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko dessiné sëriñ Mansour si borom daara ji jëfe la yonent bi waxoon ci ne nanga ko faj ak sa loxo mu jël xalimaam bind tontu ñooñu daan ne leen fa tabbat yadaakum ayu al husbatu lati tusii'u bi rasmil badri sirril bariyati <laughs> waaw soxna Faat Sall sirril bariyati waaye nag fa sullat yadaakum muy wax di ŋàññi ñooñu nga xam ne ñu doon xas yonent bi ne leen yéen de toskare ñeel na leen addunaak ak àllaaxira te lépp lu ngeen defoon ci lu baax yeneen bi su fekkee da ngaa xas yeneen bi lépp loo mësoon a def ci lu baax day day màbb day nekk lu ñuy wax haba an mansura tey nag ci Sénégal ni ñu ko waxee woon démb nga gis ku taxaw wax lenn yonent bi nit ñi jug di ci àddu am ñu ne déedéet du ngeen ko fi défendre duñ défendre yonent bi mais pourquoi képp kuy julli da war a défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te li ñu wax yonent bi képp kuñ ko fi waxoon sa sëriñ wala sa papa wala sa yaay kenn dootul dégg nga dem faj ko bu jaree taal kër kooku ki ko wax nga taal ko ah ñu ne yonent bi léegi ñun ñu war a croiser les bras déedéet képp ku ko def ëllëg yowmal xiyaam yàlla dala koy laaj waaw kon fal yughayyiruhu bi yadihi mooy da koy def tont ko ak sa loxo waa léegi su fekkee ni yow mënuloo bind xay na jànguloo amuloo katt nu mën a bind mën na la fa bi lisaanihi yonent bi mooy wax de nee na nga soppi ko ak ak sa làmmin làmmiñ bi mooy lan mooy su fekkee ni waxkat nga yaa ngi ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook moo xam WhatsApp moo xam Viber moo xam Twitter lu mu mën a doon nga naqarlu loolu ndax loolu lépp day jëm ci làmmiñ su fekkee ni njiit nga moo xam daayira nga yor wala association nga yor wala imaam nga nga wax ci bu fekkee dangay ngay def xutba nga wax ci wax ni lii ñu wax yonent bi naqarlu nañu ko neexul kenn waaw fa in lam yastati fa bi lisaani waaye fa in lam yastati su fekkee ni yow mënuloo wax amuloo pouvoir wax ndax nekkul ñëpp mën a wax waaw mu ne la nag fa bi qalbihi waa metti lu ko sa xol waaw mënumaa bind wax waaye wax dëgg yàlla lii ñu wax yonent bi de metti na ma lool waaw metti na ma lool kon nag mbokk yi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp lu yàlla bind moo tax nga xam ne dañuy wax ni yàlla léppam leer la mu xool leeram yi leer gi ko ci gënal mu jël ci bind ci yonent yàlla muhammad waaw léegi nag yàlla bind yonent bi ngir moom su ngeen demee góor gi dafay wax ni wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi si waa sayidil mahmudi wa huwa xabibu gis nga yàlla dafa fonk yonent bi dafa bëgg yonent bi moo tax bëggul kenn kuy wax lu safaanoo ci yonent bi ndax sax yonent bi mënoo cee wax lu ñaaw ndax amul lu ñaaw xamu ko ndax yàlla daf ko préparé laataa muy ñëw leeram gi fi mu jaar yëpp laata muy juddu leer gi mus musula jaar sax ci ndiggal kéefër alquran moo ne wa taqallubaka fi saajidin voilà maintenant un sénégalais lamda ñëw war a audacieux taxaw ne yenent bi xam nga c'est un bédouin walxiyaasu billah yàlla yàlla musal sax ci kàddu googu ñun ñu koy ñun ñu koy jàlle lawaat ah nga xam ne ñàkk xorma ñàkk teggin la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pourtant bu ko waxoon keneen ci Sénégal ñu jëflante ko ak moom moo xam sëriñ la wala leneen te boo xoolee tey bu doon yenn saa yi tëj nañ fi nit ba tàyyi ndax lan offense au chef de l'État <laughs> offense au chef de l'État mooy nga wax ci président de la République wax ji tegginewul procureur ne woo leen ma diw nga ñëw ñu àtte la tëj la ndax lan président institution la waroo koo wax lu ñaaw waaw ñu jël l'institution des institutions mooy Seydina Muhammad wax ko lu ñaaw kon war nañ ko défendre wax naa la léegi ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dafa xool leer gi leer gi ko ci gënal mu bind ci yonent bi moo tax sunu mag ñi yàlla yàlla fayal ñu leen bu ñu demee ba gën sopp yonent bi bu ñu demee ba gën a bëgg yonent bi ba gën a xam dayoo yonent bi c'est grâce à ñoom mooy sunu mag réew mi yëpp nag waaw suñu mag réew mi yëpp am sa alxaaji Malik dafa wax ni wa innahu is araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuuran nabil alami may maanaam moom dafa déparé fi yàlla amee yéenay bindu yonent yàlla Muhammad déparé foofu di dem dem nee na moom lépp lu mu am yërënte bee tax waaye nga gis ku ko feelu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu moom feelu ko daan ne la lam yabdu mislul Mustafa Muhammadin sirran wa jëhran fii baraya samadi <laughs> suñ mag ñi kenn du ñoom léegi yow nga bëgg a mbubboo lan man fii laa bokk te yow ki ngay mbubboo moom rasulillahi rek moo ko ñor loolu war war nañ ko xoolaat ku tuddee boppam xaadimu rasul senegal ba mu daj fuñ fu tuddee xaadimu rasul sa xel kenn dong ci kenn dong lay dem mooy maam Cheikh Ahmadou Bamba mooy maanaam le serviteur du prophète léppam yonent bi la léppam yonent bi la léegi nag mooy dañu war a arrêté dañu war a arrêté temps yële passé am na ku fi ñëwoon ne alquran yi dafa am problème moo tax daf koo wax rek ay ay diir ab diir lañ ci teg rek mu dee gis nga moo tax del xool képp kuy ŋàññi alquran wala ngay ŋàññi yonent bi doo gudd fan tey doo am mujj gu rafet mooy lan fa ngay jaaree nit ñi bañ la ba faw kenn dootu la bëgg looy ut booy boo xam ne dootoo ko am bu dee nguur moo tax wala bëgg a siiw moo tax nga ne danaa jaar ci yonent bi wax ci loo xam ne ñëpp danañ ma xam booy boo xam ne sa siiw googu musiba la lay jural bu doon nguur nga bëgg dootoo fal bu dee xaalis nga bëggoon dootoo ko am bu dee jàmm parce que loolu sax du jàmm oto oto jàmm bu dee jàmm ngay ngay uti doo am ndax yonent bi du moroom soo xoolee laataa muy ñëw. mboolem yeneen yi fi mës a jaar yépp ñu ne la cent vingt quatre mille prophètes cent vingt quatre mille yooyu ñu sepp ci trois cent treize. mais xoolal ba ba léegi ci concours bi ci trois cent yooyu ñu sepp ci vingt cinq moom la alquran indi ñu tuddee ko ulul azmi ci vingt cinq yooyu ñu sepp yeneen juróom ci juróom yooyu ñu toogloo ñeent ñi xëcc ko muy rasulillahi kon kooku ku ko def moroom xamoo li xew ku ko def moroom xamoo li xew te ñun bu yàlla bindul woon yonent bi ñun ñun ñun duñ xam yàlla ñun julli duñu xam yàlla parce que moom moo ñëw nañu yàlla moo ne nangam ak sàngam alquran ci yonent bi la wàcc wàccul ci keneen kan la wàcc ci yonent bi la wàcc mu yàlla nee na lii yàlla nee na lii duñu wax kon nag bëgg daraja wala li ñuy wax bëgg buzz bula la taxee ñëw jaar ci yërënt bi di wax wax joo xam ne yaa ngi dégg li ngay wax maanaam maîtriser woo te beneen bi mooy danga ngaa weddi lu alquran wax màkk la ñuy ajee nga ni kenn warul ajee màkk yow kon weddi nga li yàlla wax inna safa wal marwata min sahairillahi safa ak marwa fu mu nekk du màkk loolu yàlla moo ko wax kon yow boo boo weddee wax yàlla génn nga ci diine wax yàlla képp ku ko geddi boo boo xam ne jàppeetuñ la ab jullit waaw jàppeetuñ la ab jullit kon ñu fàttali mbokk auditeurs yi ñi nga xam ne yéen a ngi déglu niñ ko defee woon démb rek képp koo xam ne bëgg ngaa participer ci émission bi mën nga jaar ci via appel vidéo incha allah ñu bokk ak yow plateau bi niñ ko defee woon démb ñu ngi ci seen waxtaanu koor ñu ngi waxtaanee yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ni sunu magu sunu magu réew mi dañu bëgg yonent bi dañ nga ciy gis koo xam ne day dem ba yàgg naan naa al mustafa mas naa ajiban ñun de sopp nañ yonent bi tagg nañ ko taggu yéeme yéeme yéeme leen laajee lan moo tax ngeen tagg yonent bi dañoo ne li fire li alxafuuru bi yawmi diini ngir rek ëllëg yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar yàlla yàlla defal ñu loolu waaw kon yow kon yow tag tag tag gi ñu tagg yonent bi ngir rek yàlla yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar moo tax waaw Sénégal nag bu laal diine ku ne na nga yem ca la nga xam la nga jàng nga wax ko problème bi loolu la léegi nag mooy dafa bari ñoo xam ne dañuy réeral nit ñi yow jànguloo maîtriser woo li ngay wax luñ la laaj nga ni dama ko tontu ñeme yàlla mën a kàcc mën a wor te eh, moone man moo ne man kazzaba alayya mutaammidan fal a minan naar nee na képp ku ma waxal loo xam ne waxumu ko wala ku ma sosal bay boo nga préparé sa banque safara Sénégal ñi nar a fa nar dem bari na de ñii sosol yenent bi yëpp li ñuy wax daal yenent bi moo ko wax fekk waxu ko yenent bi ne nee képp ku ma waxal lu ma waxul walla nga wax askane loo xam ne man defuma ko nee na bay boo nga préparé sa ban ca safara soxna faal waaw kon nag bu nekk loo xam ne jar na kilifa yi jóg ci wax ndayit lool ndax loolu lañ leen fi tegee al ulama warasatul anbiya mooy borom xam-xam yi ñoo fi remplacer yonent yi waaw borom xam-xam nag buy jëfe xam-xamam moo tax ñuy wax xam-xam lu mu bari bari te doo ko jëfee amul njariñ yaag ñu jàngul yenee ndax dañuy wax ni barke xam-xam mooy jëfe léegi nag senegal da ngay jàng ba ni ar ngay gis ku jàng ba ni ar yées ku jàngul yées ku jàngul te li gën a garaaw mooy mag murul wax dëgg maa ngi koy wax léegi sànq ci benn émission fenn laaroon doon waxtaanee mooy Sénégal jikko boobu rek moo ñu téye ba léegi mënuñoo avancer mooy wax lu dul dëgg waaw wax lu dëgg koo xam ni boo séq ak moom pexem yépp mooy di xool num la làllee rek num la tegee dil rek te yeneen bi def ni woon ayatul munaafiqi salaasun daf ni ñetti jikkoo ngi nii képp ku ngeen ko gis ci moom ñetti yi see boo xam ni naafiq piir la waaw nag mooy koo xam ne ñuulul weexul bu teyee mu mel ni bu subaa mu mel nii muzabzabina bayna zalik laa ilaa haulaay wala ilaa haulaay te ñooñu yàlla nee na safara lañ jëm inna al munafiqina fi darakil asfar min an naar inna al munafiqina fi darakil asfali min an naari yonent bi ne ayatul munafiqi salaasun isa xadasa kazaba mooy koo xam ne maanaam bu waxtaan wi neexee mu commencé kàcc <laughs> bu waxtaan wi neexee rek mu commencé déraper diw nettli histoire yoo xam ne c'est irréel c'est nga toog say gars yi wër la wër la rek moo xam ay militant la moo xam ay taalibe la nga commencé wax lu dul dëgg waaw xoolal loolu isa xadasa kazaba nañ ko bàyyi gis nga ñaaw jikko boo wax fena ko jur parce que soo commencé wax lu dul dëgg rek commencé ngaa soxor commencé ngaa jëw commencé ngaa nekk rambaajkat commencé ngaa nekk jaxasekat lu ne lu ne lépp luy jikko bu ñaaw fen moo ko jur waaw nañuy dëggu gis nga dëgg dafa neex soo xasee dëggu foo toog da ngay nekk à l'aise waaye gis nga boo mënee fen da ngay xat <laughs> foo toog bu la nit ñi gisee daan leen gars yi defaru leen de saawaay a ngi ñëw waaw da ngay dem ba mujjee xat yow parce que de yow doo xam lan la boo egsee rek ñëpp ne pat da nga naan waa sa waay lan moo xew ñu ne la ah comme yow doon nettali waaye loo dégg mu siiw ku la wax koo dégg muy wax problème am nga génn weer ko ci mbedd mi fen rek dañ ko bàyyi baaxul te dara gënul ñaaw dara gënul ñaaw dara gënul bon ñëw ba yowmal xiyaam gis nga boo nekkee fankat fi dañ lay bind ca fële lawxul mahfuz da ngay ñëw ba yow man xëyaam ñu taal tableau d'affichage bi bind fa sa tur diw fenkat bi moo nekkoon Sénégal ñëpp di ko liir kooku boobu gàcce ah, rëy nga am gàcce fii ci àdduna gàcce ku ko gën a ca àllaaxira ñëpp di la gis ñu bind sa tur ci tableau d'affichage bi diw fenkat bii moo nekkoon Sénégal <laughs> ndeysaan yàlla yàlla musal ñu ci fen yonent bi mooy wax de mu ne beneen mooy wa iza tuminat uh, uh, wa iza tuminat xaana waaw koo xam ne soo ko wóoloo mu wor la ba léegi de mënoo ci génnee fen maanaam dañoo tënk li ñuy tënk ba wax ba joxe rendez-vous sàngam nga wuute ñëwoo wax nga wax nga lu dul dëgg ndax fii lañ toog signé li ñuy signé wax li ñuy wax ne sàngam heure sàngam nañ daje sàngam nga dem defi li la neex nekk ci leneen war nga koo xam ne heure boo ko wóoloo mu war la heure boo ko wóoloo mu war la Sénégal ñaata nit ñoo fi war ñaata nit ñoo fi def publicité mensongère produit wi nangam produit bi nangam ta xaraam lan la ciy wax yëpp boo duggee doo ko ca fekk lan la ciy wax yëpp boo duggee doo ko ca fekk kon yooyu yu yu yu doy waar la yoo xam ne lu ñu war a moytu la dañ ko war a moytu waaw dañ ko war a moytu parce que nekkul jikkoy sang nekkul jikko ju baax li ma wax rek Sénégal nag moom bu fekkee danga bëgg siiw wala bëgg ñu dégg la dangay ngay da ngay inventé parce que boo liñ fi war a wax yëpp wax nañ ko mag ñi bind nañ bàyyi fi lépp loo fi war a wax fekk nañu wax ko ba pare léegi nag bu fekkee da ngaa bëgg ñu dégg la da ngay inventé wax wax jur rëy su ko defee nag ñëpp def la statut ñu publier la ci réseaux sociaux yi diw de moo wax lii waaw waaye am nga bës de waaye sa bës boobu de du la jig bës boo xam ne yow mal xiyaam boo tul mu dugal la safara yàlla ci yàlla musal loolu dara jaru loolu dara jaru ko bés boo xam ne du lu yóbbu fu baax dara jaru ko waaw kon nag nañuy wax dëgg bàyyi jaxasay nguur yàllaa koy joxe tuutil mun ko man tasha yàlla nee na maa xool ku neex ma jox la nguur waaw buñ ne la buñ ne la bu fekkee dangaa ngaa bëgg a falu ñu lay laaj bëri ko deret nga ñëpp falu waaw boo faloo yow koo jiite comme yow rey nga ñëpp boo faloo koo jiite ba fanoo koy jiite waaw nga jàpp nit di rey pour bëgg a falu yow boo faloo koo jiite am na yoo xam ne jëru ko nit da ngay gëm yàlla li li benn góor waxoon mu ne ma senegal gëm nañ yàlla waaye dañu koo wóoluwut waaw gëm nañ yàlla waaye dañu koo wóoluwut tey ki nekki président ku ko waxoon ne yaay nekk président du ko gëm ndax xalaatu ko woon waaye yàlla moo dem def li ko neex seppi ko ci gaa ñi ñëw indi ko waaw seppi ko ci gaa yi ñëw indi ko kon nag mbokk yi mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa lu ne daj na ko mais del xool képp ku ko mësoon a solo rek doo am mujj gu rafet biñ ko yónnee ci màkka dafa am ku ñuy wax abu jahlin moom mu moom mu gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa abu jahlin ndaysaan gis nga waa Màkka dem nañ ba def benn assemblée générale ndaysaan baay Ibrahima Sakho moo daan wax naan mi ngi amoon mi ngi doon am samdi soir waaw samdi soir la amoon ci fu ñuy wax daaru nad nadwa ñu dajale def benn AG ordre benn ordre du jour bi lan la mooy nan la ñuy def ba sànk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ordre bi lenn la mooy nu ñuy def ba sànk yonent bi waaw kese mooy ordre bi waaw loolu kese mooy ordre bi waaye nag daluñ ci ñu def seen réunion keroog réunion bi am na cent personnes cent personnes am na ko ordre du jour bi mooy nu ñuy sànkee yonent yàlla Muhammad ñu ñëw toog bi ñu ñëwee ba tëj bunt bi comme cent personnes yi mat na ñu toog ba yàgg am ko fëgg mu fëgg ñu am ku jug ubbi bi mu ubbee mu nekk benn waay bu kaalaw daan ne moom daa bëgg a dugg ñu ne ko ah salle bi de cent personne lay jël te fees na yaakaar naa yow te sa tur nekkul ci liste bi kon loo dugg mu ne la ah mu ne leen ah baax na man de dama amoon xel mu rafet rek bu ma ñëwoon indi leen ko ngeen ni ngeen pour ngeen sànk yonent bi mu ne waa xaaral ma dugg wax ko gaay kilifa yi mu duggee wax ko gaay gaay ne ko ah comme moom naj di la dëkk te ñoom waa naj di seen xel dafa rafet bàyyi ko mu dugg ndekete kooku iblis la <laughs> ndeysaan iblis la mu ngi ñëw moom ngir bokk ci ndaje mi ordre du jour bi nu ñuy sànkee yeneen yàlla muhammad oustaz na ali ñu ñëw toog ñu sànni orateur yi pour wax la rek loolu aka leen a ñoroon xoolal réunion bi ñu ngi ko commencé samedi six heures ci ngoon ba cinq heures du matin ñi ngi réunion gudd na de ba cinq di du matin ñi ngi réunion ngir nu ñu sànkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ñett ñoo wax benn waaye dafa jóg laaj parole ñu ne ko waxal pour maanaam ku ne da ngay joxe sa xalaat ci ni ñuy def rek ba waa ji faatu kenn ne déedéet xam nga nu ñuy def dañ koy jël takk kook benn giléem dàq giléem nga mu dugg ci àll bi giléem gi dóor ko ci xeer yi ak ci garab yi mu faatu iblis moo jug na ko ah yow wéroo de <laughs> sa xalaat baaxul toogal ki doon jug laaj parole bi mu laajee parole ñu jox ko mu ne kii xam nga nu ñuy def dañ koy tëj cib néeg jox ko lekk ñaari fan ak naan ñaari fan su ñaari fan yi jeexee gisul lum lekk gisul lum naan day daal faatu iblis na ko ah yow toppal fale yow xalaat boobu baaxul kii pexeem ëpp na lool ku ñuy wax abu jëxlin daal di jub ku rafetoon xalaat la waaye xalaat bu bon du jariñ dara loo rafet xalaat xalaat xalaat bu bon du la jariñ dara abu jahlin moo jug daal ne xam nga lan la bu leen ñu fi yàggal kii lenn dong la ñuy def mooy comme Màkka am na six famille famille bu ne dañ ciy jël benn waxambaane mooy góor gu am kàttan ñu jox ko jaasi ñu wër kër yonent bi nga xam ne su génnee dañ koy dóorandoo rek mu faatu <laughs> xam nga boobaa duñ xam ku ko rey ndax ñëpp a dóorandoo caa tët Iblis daal di ree daal di ne ma rayu rayu ko ne ko boo boo yaa rafet xalaat sa xalaat rafet na mais loolu la ñu def ko pacte ne kon noonu lay demee waaye ndeysaan keroog ñoom bi ñuy réñoo fii ci suuf di xool ni ñu sànkee yonent bi yàlla ak yéen ak ay malaaykaam ñi ngi réñoo ca kaw di xool li ñuy li ñuy musalee yonent bi. wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirina yàlla nee na man man euh, maanaam du ma fexe yàlla nee na damay bàyyi ngay fexe rek ba ba nga pare ma jël këpp ko sa kaw loolu mooy yéene néeg la boroom a cay fanaan yenn saa ngay fexeel nit boo wattuwul pexe ma yow yow bu këppoo sa sa kaw lay këpp loolu moo leen dal nag gis nga dañu ñëw ñëw wër kër yonent bi comme comme réunion bi jeex na ñu ne ate nañ nañ ñëw nag comme tey saa tey la war a génn ñu préparé wu nga xam ne bu génnee rek dañ koy dóorandoo fekk yàlla yónni na jibril jibril ñëw ci yonent bi daan ne ko laa tastabit yaa xiratil kurama ala firashika wax wal ko ah, yàlla nee na bul fanaan tey ci sa néeg bi ndax noonu ñi ngi sa kaw dañ laa bëgg a rey <laughs> waaw yonent bi daal ne ko toogal fii ci néeg bi soo xëyee ñi nga xam ne ñoo ma dénkoon seeni bagage nga jox leen ko ta nga fekk ma a war comme ñun fii xat nañ fi fi ñu dëkk xat nañ fi ba ñu génn nañ dem ndeysaan gars yi ñag <laughs> foofu lañ toog daal di waxtaan ba nelaw gars yi nelawa nelaw bët bi di xanaa nekk na yeneen bi moom ca fajar la génn romb leen dem benn waay daal moo fa romb rek fekk leen ñoom ñuy nelaw mu yee leen da leen yéen lu ngeen def ñu ne ko yeneen bi la ñuy xaar mu leen yeneen bi dem na bu yàgg <laughs> waaw keroog nag lañ am lu leen metti ñu naan waa ji jinne waa ji daa am ay ay rabak ndax liñ ko waajal yëpp xaar ko def yi suñuy assemblée générale réunion boo xam ne mat na cinq de temps wala lu ko ëpp mu romb ñu nuy dem kii daal du nit waaw kii daal du moo tax gis nga keroog ñu am lu leen métti loolu moo tax boo xoolee keroog keroog mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoo defoon loolu maanaam réunion bi pour sànq yonent bi dañ xare badar lañ leen rey xare badar lañ leen rey ñoom ñëpp waaw ndax keroog bi yonent bi génn dafa tibb suuf jàng yaasin ba fahum laayu bi siruuna mu xëpp leen ko keroog képp ko suuf sa laal keroog badar lañ la rey moo tax abu jahlin safara rek kenn mënu ci dara bañ yonent bi mënoo ci dara keroog benn waay daf ko jam moom abu jahlin bi waaj a faatu waa ji ñëw fekk ko abu jahlin muy sukkuraan mu dëgg ci dënn bi abu jahlin daan ne ko demal boo demee neel yonent bi ba fii ma tëdd nii di sukkaraat tey laa ko gën a bañ waaw waa ji jekkali ko waa ji dem woo yonent bi daan ne ko rey naa abu jahlin yonent bi bi mu ñëwee tiim ko daf ni maata firawna aadil humma nee na man sama xeet abu jahlin mooy seen firawna ndax bon rek moo tax keroog la yàlla di wax malaaka yi naan ko xuzuuhu jàpp leen ko moom abu jahlin faxulluuhu ngeen poñe ko rat mu jahimu salluhu ngeen dugal ko biir safara waaw xolol loolu ngir lan la ko yóbbee woon ba yonent bi rek saaga na yonent bi lu ne lu ne wax na ko lu ne wax na ko ko te pour wax la ni dañoo war a défendre yonent bi yàlla moo njëkk a défendre yonent bi dafa am ku ñuy wax Walid ibnul Mughira moom it ni mu nekkee woon ci penc mi mooy lan xas yonent bi rek wax lu wax lu ñaaw yonent bi mais gis nga bi mu demee ba affaire yi soof yàlla yàlla dafa ñëw rek xëy rek ne yonent bi noppil kii bàyyil ma tontu la ko bul ko tontu wala tuti kulla xalaafin mainin yàlla def ni yeneen bi wala tuti' bul topp kulla xalaafin bépp giiñ giñkat mahinin mag mu dooj koo xam ne su waxee bala kaa kenn gëm mu waat ba sonn yàlla ne bul topp kii yàlla ngi commencé génne ay secret ndax daa xam lépp daa fekkee démb fekkee tey daan ne yeneen bi bul topp koo xam ne su waxee bala kaa kenn gëm mu giñ ba sonn waaw ne ko mahinin mag mu doy di ne ko hamazin koo xam ne ay ndaw suñu ko rombee muy wokkante ka tiisante macha in bi namimin di dox di rambaaj rek lu ñaaw mu wax lu bon mu fekkee waaw macha in bi namimin te mën naa in lil xayri mooy du def lu baax du ko digle képp ku mu def nga gis képp ku mu gis nga koy digle mu tere la ko waaw utulin te ku wang la <laughs> yàlla mën a xas de waaw di xas góor naan ko ku wang la waaw waaw daan ko te gis nga ginnaaw loolu baax na zalika ginnaaw juróom-ñeenti jikko yi ma ko waxal beneen bi sax mooy zanimin doomu njaalo la oh gis nga bi mu ko waxee loolu nag chatatatat saa waay jaratul dara ci ci réew mi jaratul dara te kilifa la woon mais yàlla moo moo génnee secret boobu ne ko nekk judduwul ci yoon doomu njaalo la moo tax gaa yi ne ko yow nekkati yow sa wax ju bëri ji yëpp yow doomi jaalo ko keroog nag la la jug dem poñe ji yaayam ne ko di nga ma wax kan mooy sama papa judd na ba am 18 ans papa am door koo reconnaître kon nga kon nga xam ne yàlla moo njëkk jël défense défense yonent bi képp ku ko daan wax lu ñaaw yàlla jël na défense ci yow Abu Lahab mook papa yonent bi ñoo bokk benn baay bi mu sonalee yonent bi yàlla aw saar la wàccee ñuy xas abu lahab moom ba fi mu ne nii xale bu mujjoo juddu day bu jàngee saar yooyu ñi xas abu lahab te mooy tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab Yàlla nee na abu lahab moom perte na àdduna ak àllaaxira lépp lu mu mësoon a def yàqu na waaw te sa yaslaa naaran zaatal lahabin te yàlla nee na safara la jëm wa imraatuhu ak jabaram yëpp ndax jabaram moom moom it li ñuy wax euh, ségrégation da doon jàppale jëkkër ji bu yonent bi jógee pour dem euh, ci jàkka ja moom mooy dajale ay mbalit di ko teg ci yonent euh, ci yoon bi yonent bi jaar pour yonent bi su fa jaaree fa xastalu xoolal pexe yooyu yëpp tey mu jural la safara waaw tey nga taxaw ci senegal yow en deux mille dix huit ne yow ab jullit nga taxaw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw rek ne bon benn waay bu jige fee rek ne yàllaa ma yónni ñu gëm ko. waaye yow lan mooy sa àtte yow avec ça nga ni kenn warul jël défense yonent bi pour lan moo tax dañuy wax ni booy wax xamoon lay wax waaye boo xam lañ lay tontu boo buy booy wax waxal lu neex waaye bul xam lu ñu lay tontu waaw sa yaslaa naaran zaata lahabi wa amraatuhu xamalatul xatab waaw fii jiidiyaa ablum min masad waaw bari na ñoo xam ne yàlla daf leen a toroxal ngir rek ñàkk a war gi ñu ñàkk a war ma ci yenent bi ak alquran ndax lan boo xoolee toujours nag ñi koy def ñaar lañuy ñuy doon soit ñi ay boroomi xam-xam lañ liy tuddee dañuy jàng ba li ñu jàng fel seen xel maanaam dañuy dem ba foog ni ñoo fi raw bay wax wax ju ëpp beneen bi ñu am xaalis ñoo koy def fag ni ñoom ñoom maanaam dara tëwu ndax soo xoolee walit moomu nga xam ne moom laal doon nettali keroog bi ko yàlla xasee juróom fukki xas yooyu ba pare nga xam ne amatul valeur ci dëkk bi mu dëkk gis nga mooy li ma la doon wax rek mooy yonent bi soo ko xasee xas yow dootoo am valeur fi nga dëkk yow ñëpp lay deses détesté ñëpp lay baax del xool ki wax wax ji rek foo tuddee turam aw saaga lañ ca nit ñiy teg ñu ne la du nitu dara waaw du nitu dara keloog Walid amul amul amatul lu mu lu mu représenté ci ci jamono ji ci ci jamono boobu nga xam ne lépp luñ daan luñ daan def dañ ko ci daan woo ndax kilifa la woon amoon bari woon na ay doom bari woon na tamit alal waaw moo tax yàlla nan ko an kaana zamaalin wa banina yàlla na ko yow yow yaay kan tu te prends pour qui ndax lan li nga bari ay doom ala am xaalis tax na yow lu la neex ci penc mi wax waaw moo tax gis nga bu yonent bi ñëwaat ne yàllaa ma yàllaa wala yàlla wax ne wàccee na aw saar daa danaan ah lii de ay léeboki léppoon la rek <laughs> iza tutla alayhim wa ayatuna qaala asatirul awwalina waaw moo tax keroog sanasimuhum alal xurtuumi moo tax keroog xare badar mooy bi ñu reyee ñenn ñi moom moom ba moom dañ koo jàpp prisonnier de guerre bakkan bi lañ lañ jàpp dañ cee def benn ban euh, kii weñ xoolal xëcc ko ba bakkan bi këtt dagg ndeysaan fa la jëlee tétanos nag feebar boobu fa la jaaree dee xoolal loolu nan la ko mujjee non seulement xamal nañ la ci dëkk bi li nga nekkee woon démb ak tey fi nga jaar saw juddu yàlla weer na la beneen bi mooy ñu jàpp la prisonnier de guerre jullit ñëpp teg seen bët kii mi ngi nii beneen bi nga jëlee ci feebar boo xam ne moo la yóbbu barzaq mu jeex mooy ngay am mbugalum bàmmeel doo fa yam ñu dekk yowmal xëyaam yàlla jàpp la dugal la safara kon mbokk yi war nañu xoolaat war nañu xalaataat bu baax a baax a baax ne yow ne yërënt bi du moroom ndax koo xam ne moo moo la war a gënal sa ndey ak sa baay li may wax rek man leen ci ci moom rek ngay taxaw ci tànt ne moo gën sa seen ndey ak seen baay ñu kontaan ci yëkkati seen xaalis jox la keneen koo ko fi waxoon boo watuwul yow mi kay wax booy ñibbi dañ lay jottali say daal yeneen bi rek ngay wax loolu nit ñi d'accord ci ndax xam nañ ni moom mooy gën ji mbindeef léppam nag mi ngi amee ci barkeem moo tax yàlla dafa ko wax ni dama la dama la bind yow yonent bi ngir lan ngir tele ngir tereleere sama bopp yàlla dafa bind yonent bi ngir terelee ko moom boppam mu jeex mais boo xoolee yàlla dafa bind àdduna bi ngir teralee ko yonent bi waaw ngir teralee ko yonent bi sallallahu alayhi wa kon nga xam ne dara du moom xaaji la dara du yeneen bi tey bu demee bay sol ay bay bay bay sol ay gasineer c'est grâce euh, à yeneen bi ndax ci ci ci barkeem lañ ko amee te ndeysaan xolal xoolal ni mu modeste woon daf daan romb ay ay ay euh, xeer yoo xam ne ay or lañ xeer yi ñoo koy ñoo koy woo naan ko kaay kaay jëlee ñu jaay nga fajee sa soxla mën leen baax na ndax rek dëgg àdduna mu leen baax na doy na sëkk nga xam ne daraan daraan toog yégloo ni soxna si yonent bi daana toog weer wala ñaari weer yoo xam ne këram cin du fa tàkk ndax ñàkk lan moo lan moo war lool lool su bëggoon yàlla jox ko mais xam na ni lenn moo tax yàlla tagg ko lenn kese ndax def na ko gaañ nañ ko sànni nañ ko xeer mais keroog bi ko yàllay tagg def na ko wa innaka la ala xuliqin azim yaa rafet jikko mais kon jikko ju rafet moo mat a sonne yàlla yàlla defal ñu ko jikko ju rafet waaw képp ku ko bëgg nag maanaam da ngay sonn ba pare nangoo muñ moytu yenn yi ndax kat am na yoo xam ne ku ci nekk sa jikko du mën a baax sa jikko du mën a rafet mooy mooy mooy maanaam di toroxal gor ñi di teg der lu ñaaw ci deru mag ñi wala ci deru gor ñi wala ci wala ci deru kilifa yi loolu boo koy def sa jikko du mës a baax tey da ngay indi sam dangay indi li ñuy wax mbañeel benn haine sa digganteeg nit ñi loolu loolu lu jar a moytu la lu jar a moytu la te li ma doon wax rek sànq maanaam maanaam boo commencé sos wala nga wax loo xam ne du dëgg ñëpp xam ne maanaam adduna bi yëpp xam ne yow kàcc nga waaw adduna bi yëpp xam ne kii li mu wax du dëgg loolu lu ko gën a rëy. nga dem léegi nag loolu moom torox tànge àdduna mu des bu àllaaxira nga ñëw bu àllaaxira ñu bind sa sa tur ci tableau d'affichage bi ñëpp di ko liir du mii de at sàngam heure sàngam moo waxoon ca Sénégal nangam sàngam mi ngi nii yéen a koy fàttaliku waaw mémoire yi day génn yëguloo ni yàlla yàlla yàlla day génnee maanaam sunu répertoire yi waaw yàlla moo ko wax moo ne wa nuxriju lahu yawmal qiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura waxtaan wii may def ak yow ëllëg yowmal xiyaam yàlla dafa koy génnee moo tax lu waaye di wax war na koo xool gis nga lu neexe expliqué la ci jamono ji ñu toll nii mooy gis nga su nit defoon njombe ci téléphone waa gendarmerie de recherche di ko wër ci téléphone dañuy jël numéro bi yóbbu su ñu demee dugal numéro bi mbooleem appel bu mës a am répertoire bi daf koy génne kii la mujjee waxal wax na tant de minutes lii la ñu wax nangam sàngam loolu yëpp mémoire bi daf koy génne waaw loolu su fekkee ay nit ñoo ko mën yàlla bu la waxee loolu nga war koo mën a gëm moo tax moo tax nañuy def attention bu baax surtout li ñuy wax whatsapp whatsapp dama koy wax man leen wattul sa bopp la tudd wattul sa bopp moo tax ku ñuy nekk di nekk ci deru gor yi di jëw di transférer ay audio yu bon ëllëg yowmal xayaam boo ñëwee yàlla génneel la ko de def ko ci def ko ci ci ci maanaam registre yi ngand yooyu nag daan ne la am aca liiral iqra kitaabaka am na yoo xam ne neex a liir de waaw am na yoo xam ne du neex a liir ndax la nekk moo yéeme moo tax lu di wax war war nga war nga koo wax yàlla nee na keroog yowmal xayaam bu nit ñu ñëwee damay tëj gémmiñ gi cër yi laay wax loo waaw ndax inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaayka kaana anhu mas'uula ala nee na damay teg gémmiñ gi daan ne acca bët yi waxal mu ne man maa doon xool lii man maa doon seetaan lii lépp lépp lépp mu wax ñu teg ne ñu ne acca loxo yi waxal man maa jëloon lii tànk yi waxal man maa demoon fii yaa ngi dégg ku ne cër yëpp wax acteur yëpp wax waaye nag su fekkee nag nga nekkoon ci loo xam ne lu neex yàlla la di jaamu yàlla boobaa day neex waaw moo tax moo tax boo ñëwee rek ñu jox la ñu jox la sa sa téere sa registre nga jëlee ko sa loxo ndeyjoor rek sooy boo kontaan xam ne aljana nga jëm waaw waaw maa man utee kitaabuhu bi yaminihi waaw waaw fa sawfa yuhaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura da ngay kontaan da ngay bég xool affaire mu neex waaw bulletin de note bi ay vingt rek ay dix neuf sur vingt waaw ñu bindal la satisfaction excellent waaw waaye nag bu fekkee ne ay suumayeen kese nga am wóorul wóorul moo tax def lu baax am solo yàlla yàlla defal ñu ko waaw koor gi nga nekk li tax yàlla farataal ko bokk na ci mooy nee na dafa bëgg soo ci jigéen nga jëlee ci ak ragal yàlla waaw ndax boo xoolee bëccëgu weeru koor lépp loo xalaat ci def ko ci lu bon rek da ngay xalaat ni man damaa woor su ko defee nga delluwaat ginnaaw soo demoon bay wax yenn saa nga gis ko wax benn affaire nga ni ko da ngaa woor de mu ne wo nga dëgg astafurlaa ngay dem bay dem fenn ñu ah da woor de ñu ne la sa cër yëpp ay woor mais xoolal loolu dèjà kon am nga maanaam yaa ngi commencé am ak ragal yàlla goo xam ne di ko xalaat moom yàlla ba lool nar a def wala loo nar wax rek ci lu ñaaw doo ko wax léegi nag loolu loolu la yàlla bëgg mu continuer su koor gi jeexee mu continuer ragal yàlla goog nga amoon mu continuer ba ba diwén ba koor gi di ñëwaat mais am na ñoo xam ne ba koor gi jeex ñuy ajaat affaire yi am na ñoo xam ne koor ba koor lañuy ñuy julli bu koor gi jeexee ñu ajaat musóor yi waaw jëm déwén wala loolu damay wax ni gis nga julli boo ko def doo am doo am leeru xol doo doo bàyyilu bàyyi ñaaw julli ndax moom moom moo nekk jaamu yàlla boo xam ne rek moom la yàlla wax ni inna salaata tanha anil fahshai wal munkari yàlla nee na menn mu julli moo lay teree def lu def lu bon ak lu ñaaw waxul koor waxul aj màkka waxul saraxe mennam julli la wax ne kuy julli te julli gi dëggu ci yow nee na dootoo def lu ñaaw deetoo def lu bon mais ñun nañ xoolaat suñu julli yi bu fekkee ni ñi ngi julli tey lañ gën a mën a wax lu ñaaw tey leen gën a mën a def lu ñaaw nañ xoolaat julli waaw nañ xoolaat suñu julli moo tax gis nga boo boo boo dul julli moo tax eh, yomal xiyam coow li day bari dangay gis yàlla bu ne waa ana ñu doon julli <laughs> ñëpp commencé yëkkati loxo yàlla man waaw maay julli coow li bari yàlla ne waa léegi xam nga nu ñuy def nañ teg registre yi ne waa léegi na ñëpp sëgg ñu xool léegi nag su fekkee ne yow da nga daan julli pour nga sëgg day yomb ndax yax bi tàmmoon na ko sa yaxu ndig ginnaaw gi tàmmoon na ko dangay ngay sëgg rek dem waaye su fekkee daawoo julli yax bi da ngay bëgg sëgg affaire bi ni la dee taxawal sëgg mukk comme comme nangoo woon sëgg fële moom fii moom damay bañ mënoo fexe fexe ba sëgg moo tax boo xoolee yàlla def ci def lu am solo mooy julli moo tax boo xoolee tubaab bi suñ màggatee duñ mën a sëgg loolu looloo ko waral am na ñoo xam ne suñ màggatee duñ mën a sëgg ndax lan tàmmuñu woonu sëgg ak siggi dafa nekk mouvement boo xam ne yàlla yàlla non seulement mi eh, mi ngi ciy defar sa ruux waaye mi ngi ciy defaale sa yaram loolu nag ñu bari xamuñ ko li ñuy wax l'importance de la prière loolu dafa dafa mat a xam kon koor gi nga nekk loolu na fexeel yow noo ci jëlee ak ragal yàlla waaw gis nga yàlla yàlla méttiwul yàlla méttiwul daf ne jaamu jaamuma sa kemtu lay kàttan ni nga ko mënee nit ku ne nag xam nga sa bopp nit ku ne xam nga sa bopp te nee na soo xasee meseur ah da ngay jël say responsabilité de ndax kenn kenn du meseur ñu jàppale di la dóor la jugal julli déedéet loolu xale nga koy def pour tàmmal ko ko waaw moo tax it responsable responsabilité la boo xam ne way jur yëpp war nañ koo am ci seen njaboot boo xam sa sœur la wala sa frère wala ba ki say doom nga li leen surveiller ñuy julli ndax responsabilité boobu yàlla dénk la ko ëllëg yàlla dala koy laaj waa ndax yow bi nga nekkee ci kër gi julli jot yaa ngi doon wax ñi nga xam ne yow ci say ndigal lañ daan wéy ndax ku ne xam na ni boo yoree sa soxna ci sa ndigal lay wéy boo yoree say doom ci sa ndigal lañuy woy wéy ñooñu ñëpp ndax yaa ngi doon veillé gis ci ñoom ndax buñ feebaree yaay faj waaw bu ñuy yaay jënd Euh, yaay yaay jënd ordinance yaa jënd fourniture waaw yaa leen jox ñu lekk yaa leen jox naa loolu yëpp yaa ngi koy surveiller waaye léegi mbir yàlla yow doo ko surveiller lu waaye neex rek def day de du noonu du noonu xam nga xam xam nga lu tax mooy fi mu ne nii ñëpp bëgg dugg àjjana ne nii ñëpp bëgg dugg àjjana ndax ndax ni ñu déggee la fa nekk moo tax ndax dafa neex waaw waaw ndax lan li tax mu neex mooy ridwaanu xaadin waa mooy malaaka ba koy waaw ab malaaka moo koy garde ndax bëgguloo dëkk ci kër goo xam ne malaaka koy garde waaw te li ci daq ba tey mooy wal jaaru ahmadu mooy ki gën ci dëkkaale yi ngay dëkkal te mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne bëgg naa dëkk ak yonent bi waaw waaw waaw ñu lay wax ni kër goo xam ne war rahmaanu naashiha architecte bi nekkul Pierre Goudiaby Atepa déedéet yàlla moo moo mooy designer bi waaw waaw ku ne bëgg na dëkk ci kër goo xam ne yàlla moo tracé plan bi yàlla moo ko tabax waaw kër goo xam ne wal misku tiinatuha gis nga karo yi ay parfum la te parfum bi dàq ci parfum nekkul parfum VIP nekkul ay odorant parfum bi ki la tudd ñu ngi koy jëlee ci deretu kéwal moo dàq ci parfum yi waaw xusuuruha zahabun nga xam ne birig yi ay birigu or la waaw ay or la nga xam ne nekkul ciment nekkul ciment plâtre ay birigu birigu or la kër googu jar naa liggéey ba dee ndax dëkk fo rek waaw goo xam ne anhaaru a labanun xam naa faale ni danañ kontaan waaw kër goo xam ne dafa am dexu meew dexu soow <laughs> yaay te te ndeysaan anhaaru a labanun soow moo xam ne du forox du kàcc kenn xooju ko kenn boole koo pëndëx noonu daal ndax day écoulé waaw wal xamru yajri fii majaariha te ma dafa amaale lan dexu dexu sàngara nekkul nag sàngara su nekk eh, bi nekk fii moo tax képp kuy naan fii sàngara ëllëg fee doo fa naan sàngara sàngara soosu naqariwul doo ko naan di gaññi wexul te doo ko jënd ba tey wattayru tajri alal ahsaani xaakifatan xam nga ku xam dëkkuwaay bu neex ndeysaan kër goo xam ne ay gazon la nga gis picc yi picc façon picc bu nekk ñëw ñëw taxaw fa di sab te li ci neex mooy tusabbixullaa mooy picc yoo xam ne dañuy tudd yàlla waaye waaye kër googu neex na de jar naa liggéey ba dee waaw li la koy may nag nekkul fii tëdd di nelaw walla nekk ci réseaux sociaux yi di wax wax ju bon ku jóg nga saaga ko di xas mag loolu ku koy def mënuloo fexe ba dugg ci kër googu ndax kat yàlla wax na critères yi nga xam ne moo fay tax a dugg waaw critères yi nga xam ne moo fay tax a dugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni jigéen moo gën a gaaw dugg àjjana sax waaw daf ne iza sallatil atu xamsaha wa saamat sëhraha wa xafisat farjaha wa aatat zawjaha daxalatil jannati ma limal la yi nga xam ne yàlla euh, yonent bi moo ne jigéen su ko defee dugg àjjina facilement nga nga yëg ni benn jafewu ci benn mooy bu njëkk mooy lan isa sallatil maratu xamsaha mooy jigéen su respect respecté julli juróomam di ko defee ci waxtu wa soo amul ngànt benn ngi noonu beneen bi mooy was wasaamat sëxraxaa mooy su weeru koor gi ñëwee nga woor ba ba fu di dabee su paree nga reprendre mais gis nañ ci Sénégal ñoo xam ne bu ñu tàmbalee ba bu ñu amee deux jours ci koor gi ngànt dab leen su ngànt li jeexee duñu reprendre aka fee bari te am na ci ñoo xam ne am na ñàkk jom goo xam ne mën nee nañ duñ fayantoog yàlla maanaam duñ fay koor duñ fay koor boo waxee ñu ne dañoo fayantoog yàlla yow da ngaa leboon yàlla ba koy fay déedéet te it am na foofu lu ma bëgg lu ma bëgg a kii gis naa ñoo xam ne ngir bañ a fay koor bañ a am bor ci koor gi jigéen ñi da leen di jaral ñuy naan ay comprimés yoo xam ne day téye seeni rek loolu dafa xaram ba gis naa ko gis naa ku ni ma 15 ans ngi nii musul fay koor taawam am na 15 ans nee na musuma fay koor maanaam bu koor gi ñëwee day naan ay ay comprimés yoo xam ne dañuy tee règle yi loolu baaxul baaxul ci santé ndax lii génn ci yow sobe la soo ko téewee nag beneen buy ñëwaat problème ay complication la lay indil mais daf koo jar jaru ko lii ngant la yàlla moo la ko teg lum bari bari xanaa lum bari bari 10 jours lum bari bari quinze jours ngir bañ a fay koor tax na ngay naan ay doom jaru ko waaw nañu xool sunu diggante yàlla waaw beneen bi mu ne wa xafisat farjaha mooy jigéen boo xam ne sàmm na boppam waaw beneen bi mooy wa aatat zawjaha mooy jigéen ju topp boroom këram nekk ci lu neex boroom këram waaye tamit mu mu nekk ci lu neex yàlla tamit nee na yii jigéen bu ko matale yàlla yàlla nee na ma dugal la aljanna mais xoolal yii ban moo ci jafe amul benn bu ci jafe julli ca waxtu wax koor gi bu ñëwee nga woor weeru koor sàmm sa bopp topp sa jëkkër mais xoolal yi lii ku ko def ñu dugal la aljanna ndax soo xoolee tey tey tey dafa mel ni sax moom moo dàqalee ku góor ki ndax ku góor ki responsabilité yi yi tegu ci ndoddam moo bari ndax moom responsabilité doom yi ci ku góor ki la ko la ko lislaam teg responsabilité soxna si ci ku góor ki la ko euh, lislaam teg yeneen responsabilité yépp ku góor ki la ko euh, la ko yàlla teg waaw ku ki la ko yàlla teg kon nga xam ni kon nga xam ni daal mi ngi noonu doy na waar mbokk yi xam naa ñu ngi ci cëppaandawul émission li tabaarakallaahu mi ngi noonu yonent bi daal ñu xam ni du moroom ndax yàlla tagg na ko fu nekk bàkk na ko fu nekk dafa am benn góor bi mu bundee xilaasu zahab ba pare la xaaj Malick dafa dafa dafa maanaam mille soixante deux vers nga bind ko mille soixante deux vers ci benn nit mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu kon kooku cofeel am na biñ ko laajee daf ni maanaam walaysa li amalum alqaaka yaa amali si wal mahabbati nee na man li nga xam ne li ma dund ci jaamu yàlla yépp man man man yaakaaruma ci yàlla dugal ma ci aljanna li ma ci yaakaar mooy cofeel gi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi ab xool nag mënoo cee dugal yonent bi dugal ci yàlla dugal ci musiciens yi dugal ci rappeurs yi ñëpp ñëpp ñëpp xajuñ ci xajuñ ci bu ñuy dugg rek yàlla ak yonent bi di génn waaw bu ñuy dugg rek yàlla ak yonent bi di génn kon nag ñu waat xel réviser waat suñu bopp xoolaat li ñuy wax xoolaat li ñuy déglu xoolaat ñi ñuy topp ñan la xoolaat ñi ñuy topp ñan la réew mi nag ku jóg wax kon yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp ñu ngi taxaw foofu incha allahu ba suba ci kàttanu yàlla bu ñu ñëwaatee ñëwaat dig yéen ci beneen sujet incha allahu waxtaanee euh, lislaam waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat moom la ñu yàlla royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaha wal yom axir wala nee na képp koo xam ne bëgg nga ma wala képp koo xam ni gëm nga ma da ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa ndax in in tutiihu tëhtëdu la wax nee na su ngeen ko toppee rek jub su ngeen ko toppee rek baax kon nag yow ab jullit amuloo droit fekk thèse philosophique bu ñu bind nga di ko comparer ak waxu yeneen bi amuloo droit fekk yaa ngi dégg wax yonent bi nga di ko comparer ay nit moo xam nit wala Hegel wala Kant wala ku mën a doon kon nag ñu taxaw foofu jox ñëpp dex daje suba incha allahu in uridu illa al islaaha mastataxtum alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu